de Fall sans pour autant itam tudd ku mel ni Idrissa Seck mi nga xam ne euh, tey bu ñu dee tudd euh, Déthié Fall sax mën nañ ne euh, ci moom la Déthié Fall nekkoon ndawam tey ñu gis Déthié Fall valider ay parrainage am sans problème contrairement ak Idrissa Seck mi nga xam ne ci moom lañ ko xamee moom ñu daal di au second tour mbir mi naka la demee mën nañ jàpp ni tey sax Déthié Fall moom bu demee ba valider ay parrainage am sans problème peut-être xam na yenn clé yi nga xam ni am na ci biir parrainage bi moo tax mu jàll avec la facilité mais aussi euh, pourquoi Idrissa Seck mom mi nga xamanteni itam mom il a euh, les stratégies nécessaires l'appareil politique sax lay wax mom euh, ñu recalé ko au second tour waaw loolu xanaa li ma ciy wax rek ñaar rek lu tënk rek lu gàtt rek parce que démarche parti jàmbur tam mënu ma ci di xuus seen démarche rek yooyu mais gis naa ñaar daal ci moom que ne euh, constance am dafa dafa dafa des il n'est pas il constant quoi day dox nii day day dox ba mu yàgg mu jàdd parce que bi bi bi dëccee ànd ak moom daf dan dan dan woo ci naaj bi ba ñun ñëpp ñu ànd ci naaj bi ak peuple bi mooy maanaam opposition bi mu jékki-jékki rek jàdd ci kër gi mu dem mbrok soow askan bi ñun ñu fa ñu ne fa ñukku mbur ak soow mi dem Déthié aussi bi mi dem dafa yobale parti bi ah avant ah, la euh, osons le dire bi mi dem ñu bari bi mu démissioné ci journée bi mom démissioné wu lañ ko daq ndax dafa dafa des ci position am delluwaat assemblée parce que 2 novembre 2021 le ñu fall président Idrissa conseil économique social et environnemental euh mu mu mu sàkketoo dañ ko pour l'intérêt intérêt de général Covid le conseil économique social avec euh, Covid amul woon rapport a gisuñu après gisuñu effet bi bi bi CSEE e def pour Covid bi. daanaka a la sàkkatoo 2 euh, novembre 2021 Le 2 27 novembre 2021 quelques jours après le président la plénière am mu dellu wax même discours bi mu wax étant opposant donte son mentor que la vision du président ne s'arrête plus à Diamniadio moom mu dellu ne la vision du président s'arrête à Diamniadio président Idrissa Seck na ko rectifier tes propos mu ne ko je maintiens mes propos après ci la noonu décret bi wàcc mu yeewi ko moom it mu dem en tout avec tous les honneurs ak grandeur am dem boolewu ci xuloo génnul di clash di ko tontu di ko xaxar def na tekk jàpp ñaambaram temps de réflexion tuuti samp parteem bis ba mu démissionné bi mu génnee la ñu bari démissionné ànd ak moom topp ko daanaka crème réew mi yëpp mi ngi PRP toute la crème du parti réew mi le waral PRP génn d'office du réew gis nga ni c'était fait quoi dénigré nous on n'y pas nos passés parce que du nu xaxar suñu démb du nu xalab suñu démb fa lañ newoon ak moom newoon ak ñoom ba nii nii nii entre militant PRP réew mi ay ay ay soppe lañu ay wël wëlëre lañ parce que des vingt dix dizaine d'années de compagnonnage politiquement on n'est plus ensemble quoi mais mais relations humaines bi nu ngi koy sàmm di ko préserver léegi tamit sur le côté de de de leur démarche gisuñu leen sentiruñ ko trop président sa xam naa loolu mënul woon génnaat wax di wax di expliquer xaw ma la lay wax sénégalais parce que mënoo wax rupture parce que da nga demoon ànd ak euh, waa nguur gi bonne rupture mooy kon da nga dee incohérent te mënoo wax tamit euh, mënoo mënoo wax leneen mënoo wax continuité doo xam léegi xamoo fooy taxaw xamoo lay wax. politique lélé day lolou day tal ci acteur politique da ngay dem ba euh contexte bi day tax ba yow doto doto meuna am cadeau ci contexte bi fokk ñu guinn bobu contexte contexte bi ñu toll ni cadeau mënu ci bari ba na wax ci mënul bari gisunu len trop sentiru len trop ci programme nous présenter aux Sénégalais yi sentiruñ une prestance sur le l'échiquier politique vous mel plateau yi wala terrain bi sentiruñ leen ay activité politique animation politique sentiruñu aussi sentiruñ ko ba am nañu doon wax du matal parrainage man l'autre fois de naa Cheikh Yérim est-ce que dina matal parrainage a un mois en arrière waa gis nga ko daanaka ñàkkul waaye jàllul d'office mais nous ngi ñaan yàlla ñi war a bu ko defee mu kii mais daal xam naa ci démarche bi la manque de constance bi ak manque de de de de kii politique bi <clears throat> donc de de sérieux politique bi ci moom d'accord ba tey euh, dañuy des ci mbirum parrainage ak candidat yi nga xam ni jamono ji recalé nañ leen euh, ku ci mel ni Jean Baptiste Diouf moom recalé nañ ko euh, d'office Cheikh Abdou Bara Dolly itam moom sax ba tenir na point de presse wax ni peut-être fichier électoral bi moo baaxul wala ay manipulation wu gouvernement bi la dañoo bëggul Cheikh Abdou Bara Dolly bokk ci élection yi ak yu demee noonu moom Cheikh Abdou Bara Dolly gis nañ kàddu yi mu yëkkati ndax jàpp nga ni transparence am na ci yile saytu parrainage parrainage waaw depuis ñu Tambali, man je peux pas dire le contraire mun pas le contraire parce que déjà tirage yi fa la c'était open press la woon presse bi yëpp a nga devant la presse te mandataire bu ne yaay bind sa turu candidat dugal ci enveloppe dugal ci ci kees bi ba 93 candidatures nous ñu contrôlé ñu waroon contrôler Nous dugg ci kees bi ñu jëngal ko bu baax baax devant tout le monde di tànn c'est le destin quoi euh, ñun maa koy wax nous avons dogal na 17e Nous nañ premier ñi 93e ku rek li yàlla dogal ci yow la euh, transparence parce que nous ko par ordre d'arrivée day indi 2019 Nous lañ en bañ parce que y a une pléthore de candidatures mais nak régime bi ñoom yóbbu cette république à terre ba ku jog rek ñeme réew mi ñeme ne da ngay bëgg laaj réew mi loolu régime bi ñoo wàccee cette république à terre mais Sénégal kenn ñemewul woon ni na da ngay laaj réew mi ba ñi am trois et quelques candidatures euh, am ay am danaka ay 100 et quelques yoo yu déposé musul am quoi mi ngi soog mais régime bi la ci ñoo défé noonu légui nak bu joggé ci loolu après parce que parce que parrainage c'est du sérieux dafa laaj sérieux nous avons travaillé 11 000 parrains, 10 000 parrains, 60 000 parrains. Nous avons fait un tour de l'école, nous avons signé. Nous avons fait tour de l'école, tour de parce chaque fils 10 parrain lay jël nga jël tour def ci 10 da nga gonfler rek de parrain ni rek wala lot de fiche nuru parrain nga ko euh, pour technicien en informatique PRPM ak ay ingénieurs en informatique am ay experts électoraux am ingénieurs en intelligence artificielle bi PRPM. boko amul am logiciel bu baax bi PRPM am ay logiciel Excel yi ni logiciel Excel mënul traiter traiter parrainage ba ba le doublon interne ak externe ba la ki c'est un non votant kii non la wala kii doublon interne la wala doublon externe la loolu euh, logiciel lu Excel yii nii di defar ay photo yi xale yi di montage collage photo ku nekk candidat nga da ngay laaj réew mi toll foofu niveau boobu mooy yow tu mérites pas de déjà <clears throat>

daf saa double ci ci même électeur bi pare na na fii ak fii ak fee donte léeg-léeg ñeneen ñi duñ ko xam donte électeurs yi duñ ko xam dañuy bëgg kii ruskee bëgg Déthié rus Sonko pare na pare na Déthié rusaat Sonko pare na waat ko da koy indi day indi affaire yooyu ak mu laaj sérieux laaj liggéey laaj ingéniosité laaj tam nga am euh, appareil politique am poids politique bo xamné am ay militants ak sympathisants responsables nga structuré quoi mu nek lu parce que Rio de caaxaan euh, aspirer à gouverner plus de 18 millions de personnes du n'importe qui mo koy n'importe qui la wara don faudrait une personnalité responsable une haute personnalité ku digne, ku ku sénégalais yi nga xamné la jox sen parrainage mais ci biir jënd biir sénégalais ils sont conscients ñi ngi mais conscients. nañ ku ñu jox sen parrain ak kuñ ko dul jox ak lu mëna xew xam nañu ko xam ki ñi parrainé ku parrainé wul mo ñenn ñi fichier introuvable bo lu je pense amana biir de sa parti dina la bo demee du Jall, fofu loolu la koy rejeter bu baax moy duggu def vee bu verte boobu moy valide na bu baaxul mu defal rouge tëbal ko ne la déjà saisi dox la date bi heure bi jour bi wala wala ne n'est pas sur la liste nga xam ne kii c'est nekul ci fichier électoral bi wala ki c'est un non votant wala ki doublon la wala ki carte dafa am erreur ba ci ba ci ni ngay rédiger tur yi sax mën nga def erreur juum